leen woo benn par benn ndeysaan maa lay ziar guy gi quatre vingt solo day fen ngeen baal maa ngi jégalu xaaral dafay wër di wax daf maa dóor su ma dooroon samedi lañ bëre déglu rek samedi lañ su ma dooroon di nga gis fu tebeeku mbala fu dagg baala moom la ma la ma luqi loolu du làmb reconna CNG reconnaître ko sax kurul moom mënu maa daan barke Serigne Fallou Mbacké Petit Baye Fall mënu ma daan soo ma xoolee di nga xam kuñ dóor kuñ dóorul bu doon fii la day ñu faj ma baaraamam moo dugg sama biir bët ko comprendre nga ma wax la bu fekk après gisuma ma arrière ñu xool bët bët bi naaj ci biir ñu arrêté ko gars yi dañoo yaakaar soqi. ban bët la góos wala bii la bii. soo comprendre nga principal laa dem ñu jëlee principal yóbbu ma Dantec deux jours laa fa def génn mu maase bu doon luñ dóor la kon day ndeeyi wala mu am dagg-dagg principal dóoruma mënumaa dóor ku dul moom maa ko mën fuuf barki yonent bi li muy wax nag nañ dox ci kanam lamb lamb gi suñu kanam mi ngi ci kanamam dama koy dégg muy bëri wax loolu la ko ñëpp xamee mais ku dul Petit Baye Fall mënumaa daan maa ko dàq bëri maa ko bu doole maa ko bu